ce dossier n'est pas le combat de Macky Sall, le président Macky Sall. C'est le dossier de notre combat. C'est notre combat et on compte sur vous, en Président Macky Sall n'a pas à dire qu'il est candidat. Nous décidons d'en faire candidat. man ku ma xam ne am na ambition bu ma bàyyee lépp c'est parce que je suis d'accord d'être derrière lui en tant que candidat au Sénégal mun nañ politique mun nañ dund sans ministre ministère ëpp na fukki at ak juróom ca ginnaaw ñu jox ñu delloo ko donc du teel ñuy caali ci ndombo tànk di wax lu ñu gëmul c'est parce qu'on trouve que il travaille il travaille derrière lui on va se mobiliser pour le réélire en 2024 pas de plan B pas de plan C dans notre gouvernement je dis ak ku mën a doon man Aliou Sow je dis bien man je me mobilise pour Macky Sall candidat et prier d'autres et pour personne Ce discours est clair pour moi, il est clair pour le ministre Ablaï Seydou il est clair pour Kaffrine, il est clair pour tous nos départements et pour la jeunesse. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñoom acteurs yi Ablaye nag leen rek la ñu la tooteel xam nga Saloum Saloum bu déggee bu mu ngoyaan te mënta génne ay comi xaalis di ko joxe ndax ko nattu waaye nag bu luy passé lañ gisee bu kenn dul filmé ngeen gëj liñ bëggee jërë ngeen jëf